不好，三十倍。 哪队？xoolal. nañu arrêté tuuti ah. nañu arrêté nañu arrêté. maman xaaral ma commencé ci benn. sama sang bi Diop Ndoumbe yaay Ndiaye Maar. Safita yaay Ndiaye Maar. Dah ni bayon, ni bayon, Fred. Zal, bay, bay, nañ bay yon, nañ bay yon. Hey, hey, well. Thank you. వెనవెన పేర్కొనండి పేర్కొనండి అంటే సరే మళ్ళీ నా నేను డాక్టర్ డాక్టర్ డాక్టర్ 자, 야바스네. 자, 야야 투자. Bà cái nào mới đâu không? Giờ mình về anh dây mà yaay maam maa la mi tusoon gaañu seeni mi yow ni nga doon fekkoo leen fi Adama Jóobay sa papa Adama Jóob liyu Jóob Sanjiri liyu Jóob Sanjiri maa la mi tusoor seeni mi ci Demba Boy Njaay bisimila mënuma yaay njaay maar jaañ la Montagne la li Demba Boy Ndiaye Diagne la moon tey la sa maam Yërim Mbañik Mbooj moo dugg ndóob dàq damel rendi teñ tere waaloo nelaw Jóob ma nun dañu nga doon fekkoo leen fi Aminta Jóob yelli maar nii la mën a deme ma ngoog yóbbul